alhamdulilah ñëw leen seen revue de presse lamb talaatay tey jii la ca a fës wàccee gi ñu wàccee Matar Ba ci ministre des sports njabootug lamb ana lan lañ ci wax ki nga xam si ni mooy Aly nekkoon fi préparateur Balla ak Gris Bordeaux ngay xam le ne président Macky Sall bu wàccee Matar Ba rek am na lu tax ndax boo xoolee stade bu mel ne Demba Diop ak bu mel ne Léopold kenn mënatu koo utiliser ndax stade yooyee war nañ leen a ki nga xam si ni mooy du daan jeekoo président des amateurs ma ngay xam le ne en tout cas kii remplacé dëggal kàddu yooyee mu wax mu nga xam ne ne Matar Ba ku baaxoon la ci sport bi yëpp muy ci arts martiaux yi muy ci làmb ji muy ci football bi ki nga xam si ni moo di ama neex suñu làmb mu ñu xamal ne boobaak léegi ma nga toog foofee ci diwaanu États-Unis ginnaaw combat bi mu fi waroon a bëre digganteem ak ki nga xam si ni moo di Lac Rose boobaak léegi ma nga des fa foofee ci États-Unis keneen koo xam si ni moom it ñu ngi am yaakaar mu dellusiwaat ci làmb ji suñu làmb ñi xamal ne moo di Malick ndax dernière sortie mu ngi ko bëri woon le 1er juin 2014 ci kanamu ki nga xam si ni moo di Ama Baldé keneen koo xam si ni moo di Auguste Mbagnick Sène suñu làmb ñi xamal ginnaaw defet bi mu am ci kanamu ki nga xam si ni moo di Mbul fi mu toll ni bëgg naa def retouram ci làmb ji daal di def li nga xam si ni mooy rectification ginnaaw loolu ñëw ci école de lutte Balla Gaye suñu làmb ngay waajal li nga xam ni mooy ñëwaat ci écrit ba tàmbaliwaat li nga xam si ni moo di entraînement bi suñu làmb foofee ci école de lutte Balla Gaye toll nii résultat yi mu ngay gën di baax saison par saison ginnaaw bilan yi nga xam si ni calculé nañ ko ci ñaari saison yu mujj yi école de lutte boobu mu ngay gën di baax xale yi ñu gën di wane seen bopp keneen ku gën a bëgg a wane boppam moo di Ada suñu lam mu ñu xamal ne l'espoir de la Médina fi mu toll nii ma nga ca diwaanu Espagne fa lay waajee préparé digganteem ak ki nga xam si ni moo di Zarko keneen ku bëgg a def retour am moo di moo di Yékini plein wu pambay bi fi mu adversaire rek lay xaar ngir mën a wane boppam keneen kuy wane boppam ci làmb ji bañ tuddee ko drapeau di ko ci sargal suñu làmb mu ñu xamale moo di Matar Ndiaye manager bu mag bi moom lañ tuddee combat jeex jàmm ak ki xam si ni moo di Ibou Afia bi ubbi saison bi le 2 octobre ginnaaw loolu ñëw ci ki nga xam si ni moo di Diène Kaïré di doomi mbër doomi ki xam si ni moo di Boy Kaïré suñu làmb mu ñu xamal ne héritage bu rëy la doon loo xam si ni warta fay da ko war a dundal foo xam si ni booy kayre yeggoon na fa ci wàllum làmb rek jën kayre tey ñi ngi koy xaar mu mën a romb foofee moo tax yéen bu diis moo nekk ci kawam moom jën kayre ginnaaw loolu ñu dem ca Thiès ñëw ci bilan écrit bi écrit bëgg sa waajur boobee nga xam si ni ambulance moo nekk tête de file ba suñu làmb mu ñu xamal ne buñ xaymaa liñ def ci saison bi am nañ douze victoire ak macha allah bilan bi rafet na lool positif na ginnaaw loolee leen gërëm leen jox leen dig daje niki suba incha allah.